aynun ilmun yàllaay aji xam luñ fi xam kaat

Jazbul Arrahman foofee nag inscription ba cinquante mille francs rek la masalita ba itam ci cinquante mille francs dong la sa doom mokkal alquran karim ngir gën ci am ay leeral mun ngeen woote ci wala ci moom nag du bàyyi ay taalibeem benn yoon ndax ginnaaw bu ñu mokkalee alquranul karim daf leen di wéyal ak ñoom ci ab programme boo xam ne day waral ñu mokkal ayatul quran yi ak safaat yi page bu nekk numéro bu nekk ak la ca ne institut islamique al rahman dafay taxaw ay taalibeem ci li ni mel waaye itam du ca yam benn yoon ndax dafay continuer ak ñoom ci wàllum jàngum xam-xam ak njàngum nasaraan yéen ñi bëgg seen ay doom am njàng mu mucc ay daw leen gaaw ci institut islamique al rahman فقتل كيف قدر